créé lii di cent deux cent pour cent am ci ndam bu rëy seen diggante ak soq bi yoon ñu duggaat ci Fils de Balla dugg géejawaay nan lay waajee ak ay mbokkam ak préparation bi ak Gora Sock ñu ngi lay nuy nuyu baax Fils de Balla. waaw maa leen fay ginnaaw bañ sant yàlla jël seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax du sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njabootam yëpp waaw di sant sama papa bu baax ak sama yaay sama magi ku su mel ne ñoom Alioune Ndiaye Ismaïla papi ñëpp di bëggee tamit waa du Balla bu baax a baax sama xarit yi nekk fii di leen nuyu waa presse bi yéen ñëpp ah. hmm. pour cent bi parcelle créé. Hmm. génn ci seen sortie bu njëkk am ndam ndam lu rëy ñu duggaat ci géejawaay am fils de Balla Gora Sock nee na fi ñu jaarale woon say morom rek la lay jaaral. ñun hmm, dañ leen bëgg xamal ne Pikine du géejawaay. ñun géejawaay lañ dëkk. te ñoom xam nañu bu baax. lu du géejawaay. benn xam ne xamante rek. nañu. nuñ leen xamee. xam nañu bu baax te lu 14 dinaa ne góor sax yabu ma. ci nan ñi ñeema yab rek. ci nan lañ la xam. non dinañ dañ ko bàyyi bés bés ba rek. bëri naa mbëru parcelle. benn yoon Oninga laa fa bëre. def ko naa. duggaat góor sax. dootoo fa duggaat nee na. pare na du may duggaat laa jëmaat su ma paree si ñoom laa jëmaat. da nga ñeme góor a soog trop. saa yu jàkkaarloo nga ne ko tàppet nga amoo fi. lan moo tax nga ñeme. non du question lu ñeme maa wul sama bopp rek nekk xale. loolu la rek góor sax du moo mooy téye ci làmb mënu koo sax. Hmm. mënu maa téye ci làmb sax. Hmm. waaw Fils de Balla ñu ngi lay nuyu di la jaar. Uh-huh. di jox sa gis na ne combat bi njëkkoon na yàqu. Uh-huh. tey suñu defaat mu ñëwaat la kalaf bi ngeen koy bëri. Uh-huh. mais dama gis tey da da nga ñeme sa gan trop. dañ laa dee da koo xam wala lan moo xew ba tax jamono juñ toll nii nga ñeme ko lool. non kenn mosuma dee sax man ku may bëri nii laa mel man ñëpp mos a bëri nii laa mel damay wax jaay làmb ji ndax dañ ñoo fay promoteur dañoo fay. fayu ñu rek pour ñu noppi ñu jaay làmb ji jaay bés bi bëgg nañ ñoom soq def làmb ji ñu waraw làmb moo tax ñuy wax rek dara. Mhm. mais tey jii gis na la nga def bu tar. Uh-huh. làmb ji ko laaj wala da nga bëgg am leneen loo wane. noo dégg nga làmb ji ko laaj rek làmb ji lu mu laaj dañ koy def bàyyi ñu benn côté lépp lu mu wa lépp lu mu laaj koy def uh-huh. pare nañ ci côté ba. waa bi lépp maa koy def góor soo la laa mu taxaw rek. maay def lépp. maa féetee xare. maa ñëw bëri si moom na taxaw rek. na bañ a dafay déplacement rek loolu laa koy sant. moom nee na daf laa mere parce que day bëri mbër moo xamante ne yarul kaddu bu nekk loo koy wax te kaddu boobu day génn ci lamb. waaw léegi lamb ji na ma yar góor soog bu lamb jee nga yar ma. nee na bu albiné prix mu. waaw na ma yar bu lamb ji amul problème. na ma yar di lamb ji rek. maa lay fay. mu ne la mu ne mu ne doole mu ne mhm. ay secondes est-ce que tey bu la mayee deux secondes ci lay bëre ci ci la loolu mënul nekk sax pungalub jëm nga naan ay sept secondes ay deux secondes loolu daa ne. man dama xale nag ci làmb man suma taxoo rek ba dëgër rek war a génn rek set secondes yi jeex na. góor soog loolu day naxay supporter rek mais man kenn du ma appelé seconde te mbër musuma appelé seconde. Ah. man sama moromu mu du ma jàppal seconde sama moromu góor du ma manipulé si làmb amul.

wóos bu jàmbaar laa ko daane mbay guy gi nan laa ko daane ah ay zongale moom na jàpp loolu rek. nee na fàtt na sa taatu wëlis bi de. non <laughs> ñun école Balla lañ ne. kenn boo beneen beneen. boo fàtt ñu tegaat beneen. nee na bëgg ci làmb am na parcel façon catégorie bu mu war a bëree. mënuma yow mënoo koo jàpp mënuma résister. góor moom mënuma résister. bu dëgg neexee rek mënuma résister. damay dégg maa gën a féete xel maa doole. damay dégg te bu làmb ja naa ko naa ko naa ko wane. mais tey dala bëgg nga xam nooy def say supporters ñu ngi lay xaar bu juróom waaw. non làmb ji lu mu laaj de làmb ji lu mu laaj de dama koy def. yaa xam duuma si dara. yaa xam duuma si dara. mais tey jii ñu gis làmb ji ñëwagul mi ngi taw taw bi. loolu waaw ah, li xewal la rek li si ñu si ñu baax la rek. sëñ bu baax la rek. waaw sant yàlla ndox xewal la. xewal la lan ngay wax Gora Sock mu ngi jàkkaarloo gi moo yow parcelle gépp dañoo fas yéene jug. mobiliser wu ànd ak moom dooleel ko ngir mu am ndam sa kaw mu ngi jàkkaarloo yow. Gora Sock li ma koy ñaanal jàmm laa koy ñaanal jàmm laa lay ñaanal Gora Sock ba bis ba nga ñëw ma jàpp la daan la maa la gën a féete xale maa gën a soxla làmb ji lépp góor lu mu indi ko fi maa gën a féete xale maa gën a soxla làmb ji na ma bàyyi ma dem rek. mais côté côté mobilisation bi tey foo si toll. ñu ngi siy waaj bu baax nag. waaye ñu ngi leen woo ñëpp ku si mel ne la jóob Lat Diop maa ngi lay woo bu baax ci làmb ji nga jënd ñu biyee yëpp bëgg nañ ay vingt bolok lañ bëgg a jënd lépp lañ bëgg a jënd sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy woo Masata Baye Khalil ñoom Sóora Bado ñoom ñëpp maa ngi leen woo nee na Tall waaw maa ngi koy woo Mooma Ndiaye Mooma Ndiaye maa ngi koy woo ci làmb ji bu baax pii le milliardaire maa ngi koy woo ci làmb ji ñaari bolok laa la sas làmb ji landing ñaari bolok laa la sas Xarim Diagne u Bigin maa ngi lay woo ci làmb ji di woo ñëpp waaw bàyyi ma di woo tamit sama patron tamit Kañ production maa ngi koy wax ak Tafa Kañ ak Bamba Kañ ak ñoom laat ñoom ñëpp maa ngi leen woo bu baax ci làmb ji waaye balaa mhm. sa doomu da ngeen di bëri muy Balla ak yow le 7 août Balla mooy bëre dox mhm. yaay bëre mhm. pression boobu tey nan ngeen koy dundee non ñu ngi waaj maa Balla ngay tëdd moo ñuy tàqali tëdd ñooy àndandoo def lépp ñooy kondaango doo lépp ñoo koy def tëdd moo ñuy tàqali maa ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla may ko ndam yàlla may ko ndam le 7 la 14 mu ñëw yóbbu ma làmb ja ma doggali waa ji. Mhm. loolu laa koy ñaanal. waaw voilà boo xoolee parcelle géej waaye dër bi la. chaque fois mhm. mu demee. Mhm. te tey jii am leen ji wax da nga dafa am saa yu duggoon. yow nga am foo dugg. waaw tey jii day ñëwaat. ak parcelle ak géej waaye. waaw tey waa parcelle. leen ñaanal jàmm rek leen ñaanal jàmm rek. wax nag fekk fekkee am lu ma waxoon jot a leen métti maa ngi ci bu baax. maa leen di jégalu bu baax làmb rek mais du nekkul question Gora ma bëgg wax yóbbu wax ji fu mu eggul ndax dañu doon wax pour cadre làmb jaay làmb ji waaw mais maa ngi jégalu waa parcelle bu baax ndax parcelle am naa fay xarit am naa fay mbokk am naa fay dëkkandoo moom ëppale wu ma parcelle sama raxu papa parcelle la dëkk foofu déggoo lu ma la wax Gora Sock bi mu dëkk par Cambérène la am naa fay xarit moom mënu maa jaxase àdduna mais maa ngi jégalu bu baax lu ma jotoon wax maa ngi leen di jégalu wépp waa parcelle bu baax mais làmb ji ma rax moom la moom amul lu ma koy jégalu nag moom waa parcelle am ñu jóg mais max moom ci biir géew ba amul lu ma koy jégalu si làmb jégalu ma non moom jégalu ma ko dara góor soog amul lu ma koy wax lu ko neex fii ba làmb ji lu ko metti laa koy wax chaque jour lu ko metti laa ko du ma ko raayal di gëm du ko lu metti rek laa koy wax waaw non ñoom si ñeneen ñun igir Balla Gaye lañ ne ñun igir Balla Gaye lañ ne ah waaw loolu loolu loolu loolu ñoom. ñoom loolu la con ñoom la concerné. man kenn du ma daan ci seconde. man Fatma Gueye xanaa nag maa xamul nag man tamit tamit man. man mbër du nee naa la mbër du ma jàppal appal li nga may daan amul. mbër du ma jàppal. Hmm. man maa lay appal maanaam la fii nga ma yem te laa lay daan. amul leen lu may waay di jàppal ci làmb waaw. du règlement de compte moo tax fu ñu dajale lu yomb. góor soog fii ba la 15 lay am jàmm la 15 la 15 fii ba làmb ju doom jàmm fu ñu daje day mett pour mu xam ko. pour mu teel ko sóoraale muy signature rek muy lépp. fu ñu daje du yomb. waaw làmb ji moom la 4 la 15 day am jàmm bu làmb ji jeexee. mais doon tàggoo parce que doole mi ngi taw te damay woote ñëpp di woo waa Géejawaay bu baax a baax di woo ñëpp di woo tamit waa Tëngéej sama dëkku papa sama dëkku yaay maa leen woo bu baax waa Tëngéej ñëpp ñëpp waa amoo 456 waa AKD bàyyuma kenn di woo son père Omar maa ngi woo bu baax waaw waa Sandaga maa ngi leen woo bu baax di woo Kanji production maa ngi koy woo bu baax Tafa Kanji maa ngi koy woo bu baax tam Bamba Kanji ñoom laat Lat Diop maa ngi koy woo sama père Omar Wade waaw père Lat Diop ñu ngi koy woo bu baax autorité Guédiawaye waay ñoo bëgg làmb ji ñu génn ñoo bëgg comme ñoom soq ak ñoom ki faran ni def làmb ji ñu def noonu làmb ji ndax ñun ay xale lañ ñun tey ñun ñoo nekk si Guédiawaye waaw di woo tamit cent pour cent Guédiawaye ku si mel ni ñoom Balla Gaye 2 Alioune Seye 2 Guy gi Lac de Guiers di woo mbëri fi nekkul yëpp ñoom Saka Yor Elton les deux ñu ngi leen woo bu baax di woo tamit Papa Ndiaye hmm. transitaire maa ngi koy woo bu baax ñoom Wilane ak Pierre maa ngi leen woo Mama Ndiaye waa amoo 456 maa ngi leen woo baax 456 AKD di woo ASC yëpp ASC yu nekk géej waay yëpp maa ngi leen woo bu baax a baax di woo borom sareet yi di woo tamit suñu président ASC maa ngi koy woo Diom di woo Cheikh Dia Cheikh Dia maa ngi koy woo ci làmb ji bu baax waaw Youssou Ndoye maa ngi koy woo bu baax Ismaïla Bass maa ngi koy woo Bousse maa ngi lay woo ci làmb ji nga jënd bolo gi maa bu baax waa Sandaga maa ngi leen woo bu baax jaaxu boutique maa ngi koy ci làmb waa diaspora bi tamit Moussa Bokar Thiam maire war a sooge maa ngi koy woo bu baax bee paase am na mu defoon mais dañoo bëgg bii mu gën koo yokkaat ndax làmb ji bee paase dafa yàqu woon waaw di woo tamit Cheikh Sow Cheikh Sow maa ngi koy bu baax ci làmb ji waaw Mopol Mopol maa ngi koy woo ci làmb ji bu baax Mopol mm. waaw di woo tamit Bill Billy Boy maa ngi koy bu baax ak Père Mbaye Diouf Dia kañ nga fas bu lamb ji di semaine lamb ji. waaw di woo di gërëm tamit ay ko bu baax a baax bàyyi ma kenn. di woo tamit sama maa ngi leen woo Yaya An. di bëggee tamit journaliste maa ngi leen sant bu baax.